waaw salaamaaleykum mbokku internetu Sénégal man la seen xarit Cheikh Tidiane Kandé fii lay liggéeyee fii ci Sénégal point com euh, may collègue Abdou Khadre Sakho yàlla def euh, ñu arrêté ko démb ci biir liggéey bi nga xam ne moom la doon def. dem ci ay 16 ay 15 heures euh, la waa DIC yegg si fii ci Sénégal indaale fii ab convocation boo xam ne dañ ko adressé kii di directeur de publication bi yàlla def ne fekkuñu ko fii mais fii lañu fekk euh, le rédacteur en chef mangoneka mi nga xam ne dalal na leen ci jàmm ak salaam déglu leen ñu daal di ko jëbbal ab convocation boo xam ne dañ ko yónnee waa Sénégal euh, ci teew mu teew ndax noonu la ñu bindee convocation bi ñu dem wuyu ci bu ñu yeggee dikk à 17 heures la ñu recevoir le rédacteur en chef Mangone Ka ñu daal di ko déglu 17 heures boobu ba minuit 2 heures moins. alors yàlla def ci interrogation yi enquêteurs yi décidé que ki bind article bi nga xam ne moo waraloon ñu woote ñu convoqué ñu foofu ci à la DIC euh, euh, ñu woo ko mu ñëw pour ñu déglu ko moom it ci article boo xam ne bind na ko ci bind boo xam ne ab reprise la ci terme yoo xam ne nit boo xam ne ñëpp xam nañu kan la xam nañu yan sujet lay faral di aborder ci plateau télévision yi ñu dal di décider arrêter le confrère Abdou Khadre Sakho ñu mettre ko en garde à vue mu doon loo xam ne dañ koy ñaawlu ndax journaliste liggéeyam mooy jàllale information bu amee wax ju nit wax bu ñu ko saytoo ba xam ne du wax joo xam ne quand man na yëngal réew mën na tasam réew mais war nañu ko mën a jàllale partager ko sénégalais yi ki nga xam ne am nga droit jot si jot si euh, lan mooy ndeyu ngeen baal ma ci terme ji jël nit koo xam ne dafa nettali rek li nit wax ba pare wax ko place publique ñëpp a jot si ñëpp daal di ko déglu ñëpp xam lu mu wax ak fan la ko waxee surtout sax nga distinguer nga xam ràññee ki doon wax wax ji nga bàyyi ko fi dem di dem jàppalu ki nga xam ne moom deful lenn lu dul nettali wax joo xam ne wax nañu ko su doon sax ay wax yu extraordinaire la sax ñu naan waaw euh, loolu de la ñuy ñaawlu di am yaakaar ne justice su Sénégal justice bu équilibré la justice buy jaar ci yoon la ba tax na jàpp nañ ne suba bu ëllëgee incha allahu rabbi suñu collègue bi dina dina mën a ñibbi këram ñëw continuer liggéeyam parce que quand même jàmbaar la fii ci Sénégal ñu profité rek tamit di ñaawlu acharnement bi nga xam ne souvent dañ koy teg ci journaliste yi parce que mënuñu dëkkee di jàpp journaliste ndax dafa jàllale information information mooy li am wala lu nit wax wala lu nit jëf wala loo xam ne yaakaar nañ ne mën na ami wala mën mën na doon loo xam ne war nay mën a intéresser sénégalais loolu rek la ñuy def ñun jottali information rek waaw ñuy ñaan nguur gi ñuy ñaan ministre de la justice parce que moom it liggéeyam bu fësee ngir yàlla ak journaliste yee tax ñuy naan le procureur de la république mu xam ne en journaliste ne peut pas être un ennemi à la nation c'est un partenaire dans le cadre de l'exercice de votre fonction de procureur de la république c'est un partenaire pour le ministre de la justice c'est pour le ministre de la république pour tous les ministres de la République, mais aussi aux journalistes, c'est un partenaire pour l'État du Sénégal. Un partenaire, on ne peut pas, lui, en tout cas, mettre des entraves dans l'exercice de ses fonctions. Nous vous supplions quand même de savoir raison garder et de laisser ce jeune journaliste qui est avec nous depuis plus de cinq ans, qui n'a jamais été entendu dans de pareils démêlés. jërë ngeen jëf. Euh, Abdou Khadre Sakho ñu ngi koy encouragé. Abdou Khadre Sakho ñu ngi koy encouragé euh, te di ko wax ni que li ko dal moom euh, jommul benn journaliste waaye ñun ñuy dund ak moom fii ci rédaction bi xam nañ ni euh, jàmbaaru fàq tëdd la ku ku ñeme lu muy liggéey la ku bëgg lu muy liggéey la surtout te itam ku ku ñeme njaboot la ñu ngi ñaan suñu borom jëlee ko fa mu ne ci convocation dig boobu libéré ko ci jàmm ak salaam parce que xam na bëgg na lu muy liggéey. mën na ko te itam comme ni ma ko waxee rek ku bëgg njaboot la te ñett yooyu moom bu dajee ci doomu aadama rek mo mooy loolu daal yàlla nag yàlla suturaal te génn ko beneen bi mooy xanaa mooy ñaan euh, benn appel di ko wax euh, ñoom kilifa yi nga xam te ni euh, ñoo ko fa téye Abdou Khadir góor la borom kër la jàmbaar la liggéeykat la nit nag mën a def erreur sax te xëy na du ju jublu ci euh, maanaam def erreur te du erreuru maa tey mais njuumte lay doon nit ki nag euh, te lii te la gulet Abdou xadr wala boo gulet ci kër gi ñu convoqué ko ñu am convocation bi mel nii donc Abdou Khadr euh, ñu ngi ñaan kilifa yi nga xam ne ñoo ko fatiyee ñu dawal yërmande dawal compréhension ci moom te xam ne vraiment liggéeykat la te itam li ngeen ko fatiyee daf ko ngir tayeef daf ko ngir ngir beneen intention bu dul liggéey. donc c' est dans le cadre du du journalisme rek la ci jublu woon donc ñu ñaan autorités yi euh, ngeen bàyyi ko xel euh, dawal compréhension xam ne nit mooy juum te nit la juum na euh, comme li ngeen ko comprendre donc ñu ñaan pour ngeen bàyyi ko ak jàmm ak salaam. mu dellu ci ñun ci ci rédaction bi parce que place du journaliste du foofu ngeen ko téye waaye fii la ci rédaction yi ak tam ci biir njabootam mu uuf njabootam parce que borom kër la te waa këram am nañ yaakaar bu baax ci moom.